mbokki taalibe yi maa ngi ñaan lu teewlu bu baax gannaaw ba ma sante sama mbokk yu baax yi di sama mbokki taalibe ñi nga xam ne ñoo jëloon kàddu yi liñ ci waroon a wax lépp wax nañ ko liñ ci war a xam ne lépp xam ne nañ ko ba ci Cheikh Mouhamadou Bachir mii kon gara lu ñu dooleeti ci sëriñ bi amatu ci li ci des rek moo di ma dellu si ma waxtaan ak yéen yéen di sama bokki taalibe ñi fi teew ñëpp ak ñi nu dégg bokk si ñoom Serigne Touba ñëpp sama bokki taalibe lañ jataay bi moom xam nañ sëriñ bi leer na nañ ñi xam na liggéey bi leer na nañ ñi amatu leen ci kumpa li ci am solo nag ñu dellu ci suñu bopp dellu ci suñu bopp fas yéene dooni jullit fas yéene doon julli ju di taalibe fas yéene doon jullit ju di taalibe yor jikkoy taalibe loolu rek mooy li ci am solo lu góorgóorlu bu baax ni ma ko waxee léegi rek fas yéene doon jullit yu di taalibe fas yéene yor jikkoy taalibe dañu dellu ci suñu bopp nag sëñ bi moom ñi ko war a ñi ko xam xam nañ ko xam nañ ci xam xam nañ ko bu leer li ñu mën a xam ci moom loolu lépp dégg ngeen ko leer na seen bopp ndax wax ju leer la jox ju tey la li ci rek mooy nu dellu suñu bopp parce que doy bi rek nu góorgóorlu bu baax bu yàgg daanaa wax ne nun damay baaxoo joxe suñu bopp dama baaxoo joxe suñu bopp waaye nag kuy joxe da ngay joxe lu baax kuy joxe dangay joxe lu baax nan dellu suñu bopp góorgóorlu suñu bopp jéem a xam ni sëñ bu bëgg nu mel ni nu jéem nee mel ndax loolu leer na nu góorgóorlu bu baax seytaane dafa am dole lool bari pexe lool ami gaayam lool te yàq rekk ko tax a jóg gaayam yooyu yàq rekk leen tax a jóg waaye seytaane li muy am am doole ak li muy bari bari ay pexe bëgg àdduna mën na koo noppal lam ndax lam doon lam doon bëgg ci nit ñi ci jaam ñi bëgg àdduna mën na ko caa mën na ko caa noppal mën na ko caa defal lam bëgg sëriñ bi fi mu fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis ci boroom rekk la nekk mu ta nekk ci dara lu boroom loolu ca dolli moo di yitteem jépp da koo jëmewoon ci gindi jaam ñi nam leen a wombat jëme leen ci seen boroom li fi nekk lépp ci loolu rekk la nekk ñu xamee ko noonu bu baax a baax a baax sëñ bi boroom bi rekk moo ko yittee loolu ak jaami boroomam bëgg ñu mel na seen borom bëgg ñu mel ni kon borom kat tëliwu dara mën naa xëy defar ñépp yóbbu leen àjjana waaye nag moo xam ni muy def da koy yoonal dafa digle tere am lu mu bëgg am lu mu bañ munu góor munu góorgóorlu rek ñu gàttandu dañuy am ndimbal dañuy gàttandu ndax baax ba baax jeex wéy ci ndigal ak bàyyi tere rek la bëgg lu baax bañ lu bon rek la li lu baax di daw lu bon rek la ba baax ba baax jeex daal génn ci loolu kon amuñu lay te jëfewul noona mun xamee loolu danaa di wax ne bu yàgg te loolu sax mënees na ko firee li maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon ba mu jógee ba mu jógee dafa ne woon lam ka muy wut mooy sëriñ bu ko eggale ci boromam dafa wax ne ba mu jógee di wut dafa ne dafay wut sëriñ bu ko eggale ci boromam fekk sun borom noppi na ci moom fàggul na ko wax mën na ko ba agsi ba mu agsi sëriñ bi te booba dafa waxoon ne sëriñ bi muy wut bu ko gisul jëmm ji te gis dina ko bàmmeelam a ngi nii itam xam na ne pëstéefam ci moom la mu ciy wut dana ko am ba mu ñëw sun boo wommat ko ba ci sëriñ bi bi mu ñëw ci sëriñ bi da ko ne yàlla rek mooy sama yitte ak alaxira déglu leen déglu leen baax na waaw waaw mami mami mami sëriñ bi ne ngeen ànd ko lii mu lii mu génne ba ngeen di waxul li mu nu bëgg a te baaxul sëriñ bi bu ko kenn yàq. maam Cheikh li ko sunu borom womatee ba sëriñ bi da ko wax ne ko yàlla rek mooy sama itteeg àllaaxira waaye foofu nag sëriñ bi tontu na ko fi foofu sëriñ bi tontu na ko fi moom dafa waxoon ne bu gisee bàmmeelu ci muy wut xam na ne positif ci moom li muy wut dana ko ci am waaye sëriñ bi da ko wax ne ko bi mu ñëwee moom xam ne rasulullah tegoon na bëtam ci asamaan si suuf si xam na ne positif ci moom li muy wut ci moom dana ko am loolu la ko sëriñ bi tontu nangul ko nag foofu laay waxee ne ku gëm yàlla gëm alaxira ku gëm yàlla gëm alaxira saw doxin dana ku gëm yàlla gëm nga soppi doxin waaye nag gëm mën naa manqué mën naa des gëm alaxira mën naa des waaye bu gëm nga wéree gëm yàlla wér gëm alaxira wér faw nga saw doxin soppi ko nan dellu ci suñu bopp sëriñ bi moom noppi na dëgg la ban amee sëriñ bi la lan amoon tawféex lan amoon war a naam xel mu dal booba lan amoon lépp waaye nit du toog loxoy neen de nit du toog loxoy neen te yëngu nag yëngu na mu gënal sëriñ bi mooy ci gën ndax mooy tax nga mën a jege sëriñ bi bëgg sëriñ bi baax na lool fa la liggéey kem kàttan baax na lool waaye bëgg bëgg mel ni sëriñ bi bëgg nga mel ni wàññiwul dara ginnaaw nit mun dox neen nag nan góorgóor ci ndigal nan góorgóor ci bàyyi tere te loolu ndigal suñu borom moo ci jiitu tere suñu borom moo ci jiitu nanu góorgóorlu bu baax jëfe wut ñàkk xam rekk fi nekk waaye jëfe wut nan góorgóorlu suñu képp kattan ci li yàlla digle nan góorgóorlu suñu képp kattan bàyyi ci li yàlla tere nan góorgóorlu suñu képp suñu képp kattan bëgg li yàlla bëgg bañ li yàlla bañ loolu rekk la nu ko defee teel la tax te jiim dañuy wallu dimbale nu gàttandu nu wombat waaye ku ne yàcc yàccaaral sax loolu loolu amul solo te kenn na tabliwul na njabootu sëñ Tuubaa jàmbar lañu njàmbar rekk lañ seentu ñoom jàmbar nag toog loxoy neen du ko maye yaacaaral du ko maye il faut que nu góorgóorlu il faut que nu góorgóorlu loolu buñ ko defee moo ni mooy tax ñu jëm ci defaru te loolu gën a jëm ci defaru gën a sëñ gën a gënal sëriñ bi gën a jege sëriñ bi gën a jege sëriñ bi nag gën a jege yàlla rek la ndax sëriñ moom a nga fa boroom rek toog kon nan góorlu wàññiwul dara te jafewul jafewul yàqat bi bu bi rek fi nekk te am doole muy seytaane waaye dafa am ay bokkam ay yàq ay ay noon ay moroom yi noonam doomu seytaane benn noona kenn ci noonam rek la waaye adduna kenn jiitu ko ci noonam doomu aadama bakkan ak bànneex seytaane ak adduna ak battan bakkan ak bànneex ñooy doom ñooy noonu doomu aadama duñ ko bàyyi bu def dara mu jëm fenn dañ koy tënk rek maanaam sax ñu ñu joñ ko ngir mu bëgg mu bañ a seq benn jéego jëm ci baax kon nan xam ne dañoo ami noonu ñu nu yàqal bëgg adduna ci la bokk topp sa bakkan ci la bokk topp sa bànneex ca la bokk seytaane door a ñëw yooyu nag dañuy noppal seytaane moom man xam loolu bu baax damay soññ sama bopp rek ndax yéenay yéenay samay bokk yéenay sama bokki taalibe bi sama bokk rek bopp rek bëgg leen a soññ suñu borom nopp noppi na li mu a def lépp def na ko li mu war a fàggul lépp fàggul nañu ko li mu war a won lépp won nañu ko na nañu ci yoon nanu góorgóorlu yàlla yoon yoon bi leer nañ am ngër la nan góorgóorlu ci wécc ci ndigal suñu kem kattan jiital ndigal suñu borom yi nan góorgóorlu bàyyi tere suñu kem kattan jiital ca tey suñu borom bi nan góorgóorlu bëgg lu baax te yàlla tax nan góorlu bañ lu bon te yàlla tax nan góorgóorlu ci def lu baax te yàlla tax nan góorgóorlu ci daw lu bon te yàlla tax loolu rekk la loolu rekk la nan góorgóorlu bu baax loolu rekk la nan góorgóorlu bu baax jéem a gën a defar suñu bopp rek ba mën koo jébbale ndax ku joxe da ngay joxe lu baax lu jàpp ne yàq sa bopp ba noppi defe ngeen ne defe ngeen jox ngeen lu am njëriñ loolu mënut a nekk dañuy góorgóorlu bu ñu góorgóorlu ñu dimbali leen dañuy góorgóorlu mun danoo aadoo joxe suñu bopp waaye nañu góorgóorlu ba kuy joxe da ngay joxe lu baax xam ngeen ko nañu góorgóorlu bu baax jërë ngeen jëf mën na fee fanaan du jeex loolu am na jàpp ci loolu da ngeen samay bokki taalibe ma yéene li ma yéene sama bopp bëgg leen li ma bëgg seen bopp moo tax mooy waxam noonu sëñ bi moom xam xam alhamdulilahi rabbil alamin xam nañ ko bëgg nañ ko dooloo nañ ko jox jox lépp waaye nag nan jóg ñëw nan nan nan nan nan jëm suñu bopp nag nan defar suñu bopp mun sàggan mun sàggan rek la noonu la demee suñu bas bas